sëñ Saliou nag añu ñàkk rek la ndax yéen ñii di ay ndaw moom ngeen xam mooy seen buntu sëñ Tuubaa waaye sëñ Saliou nag dafa yeyoo bis yeyoo ko benn yoon yeyoo ko ñaar waaye yeyoo ko tam ñett yoon sëriñ Saliou Touré boole na liggéeyal sëriñ Touba ci Thiès ba murit yi ameel ko ak pay mu liggéeyal murit yi ci sëñ Touba ba sëñ Touba gàddul ko ak pay asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalube yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar tey jii nag mbooloo mu takku bàyyi ko Cees ñëw Tuuba ngir bis bu màgg di bisub sant yàlla bisub sant Sëriñ Tuuba ci ñeen fukki at yi nga xam ni Serigne Saliou Touré am na ko fi ren Thiès di fi liggéeyal Serigne Touba yàlla na fi yàgg lool te wér mu ñëw fekkoon Thiès mel ni aw xot mu soppi ko def ko ngalam loolu nag mi ngi amee woon ci atum 1980 ci ayu Serigne Abdul Ahad Mbacké tey jii mu dajeek 2020 mu dajeek ayu Serigne Mountakha moom Serigne Bachiru mi nga xam ne tey jii moo fi Serigne Touba di seere su mat ci bés bi di seere su mat ci Serigne Saliou Touré yàlla fi yàgg lool te wér. mu ne ndax moom mii moo fekk sëriñ Saliou Touré ca daara Serigne Mor Mbaye Cissé ñu bokk fa nekk mu ne foofee mu ne foofee la leen suñ borom boole ñoom ñaar mu ne foofee mu ne digganteem ak moom mu ne day yokk rek mu ne ba ci jataay bii tey gannaaw bi nu jiitalee Serigne Mountakha mbakke ci cant googu bis boobu nag dañu ko jagleel gayndeg Serigne Touba ga ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ci delloo njukkal moom mi nga xam ne moonu andil Serigne Saliou Touré ci ndigalal Serigne Touba Xaadimu Rasul ñëw gi ma ñëw fii nag du sama coobare du seen coobare sëriñ Blanc waxoon naa leen ko toog naa fi ab biir mu woo ma beneen ne ma foofu rek ñu la yóbbu sëñ Tuubaa la tànnal raison boobee teg ko ci sa loxo jox ma xasida yu bari ba may dem mu dabluwaat ma ne ma kat waaye boo demee bul dem fu nekk nga nuyoo fa daal di defe ne lépp day teew ci sa loxo demal nekk ci ndigalam mu fab lépp teg ko ci sa loxo. lépp lu cay am njariñ dana nekk ci sa lu am njariñ nag du dugg sa loxo dama tàllal loxo yi ma tàllal loxo ñu ñaanal ma kon loolee nan nan maa ci sant nan maa ci sant bu baax a baax a loolu moo tax. mboolo moomu ci njiital Serigne Cheikh ture di taawu Serigne Saleh Touré ñu ñëw ci Serigne siidi Mbacké xalifab Serigne Abdoul Ahad Mbacké ngir yëgal ko bis boobu nga xam ni ndamal waajuram wala. na ngeen daal di bisu siyaare léegi boole jot téléphone Serigne Sidi Mbacké ab taawam téléphone na léegi. gannaaw bi sëriñ sërif alwali jang daanelee kaddu gi ci turu sëriñ seex ture sëriñ siidi mbakke ci làmmiñu sëriñ abdul ahad jaxate wane na mbégteem lool ci bis bii soññaat na mbooloo mi daldi ni it fas naa ànd ak waa Cees bis bii بارك لي اللهم في آياتي واجعل فؤادي وطن الآيات هب لي كون بسر كل من يتوب ولي زوائر أب من غيوب قبولا أكون بتائر من الذنوب والمعاصي wal afaati hatta duxulal jannata allati wa'ida al-muttaqoon amiin bi rahmatika yaa rahmaanu yaa rahiim. Sëriñ Cheikh yow mi nga xam ne yaa jiite ñi nga àndal bu bàyyi ko ci ku tedd xam ne li gëm bi ñëpp xam na bokk gi yàllaa ko def waaye boole gi seen bopp ñun ñëpp dañoo judd fekk ko. muy lu yàgg kon lii nga def ànd kook waa kër gi yëpp ñuy ànd ñëw ci sëriñ bi ak sa ju baax ji ngeen fi wax ci yéene ji ngeen am ngir sëriñ Saaliwu Ture ma nga xam ne Cheikh Abdou Lahad moo ko tànnaloon waa Thiès dër ko fa mu dem ba am ñeent fukki at ngeen bëgg koo terale kàddu kilifa gu tedd googu ak sampam boobu ñëw yëgal si ko ko sàkku si ci moom ñaan xam ni def def na ko waa Thiès ba mu koy tànn di ko yóbbu daf ne sëñ Saliou Saliou ñu jàppale ko ba man faa ne ci wàllu bàtte ndaxte kat dëkk bi day xam naa ne Saliou du laaj kenn masala te ku ñëw mu jàngal te liñ bëgg moo ko mën kon su ngeen demee ba samp boobu ak ñeent fukki at ngeen ñëw teral ko ñëwaat ci ki nga xam ne moom la ko waajuram sampoon tam fekkee ko ànd ko moom def ngeen bu wéy ñu ngi leen sant leen fi sëñ Saliou nag añum ñàkk rek la ndax yéen ñii di ay ndaw moom ngeen xam mooy seen buntu sëñ Tuubaa loolu ku xam nu yoon wi doxee xam ne ka doon samp lam doon samp jekk na ndax yéen ñëpp gannaaw ngeen gannaawam ngeen gannaaw samp bi ngeen judd kon samp bu suñu plaat mboom meññ ba ngeen génn ci kon dellu ngeen atu ci ndaar def ngeen loo xam ne yéen ñi ko def xam leen ne day kanam rek la jëm moom nag miin lii la ma wax loo waaye mi ngi koy ñaanal rek mu gën fee yàgg liggéey suñ tubaab bii àgg fa fa ngeen ko bëgg li ngeen sàkku si ci moom nag nangul na leen ko ànd na ci yéen dafas na ko yéene ànd ak yéen nag ay jëfam xam nga daal sampu si ñëpp laxat la sampu Cheikh Saliou la yéen ñi yéen ay meññeent tamit ci seen i doom ak seen i sët wasalaamaaleykum wa nanu it ànd ak sëñ Touba li muy jur gis nanu gisagun kenn ku jóg ne sëñ Touba rus gis ngeen taxawaay bi ma taxaw ba faaw la taxawaay ma taxaw takk leen ko ba faaw la li feeg maa ngi naan sëñ Touba faaw la maa ngi ci sëñ Touba dëgg rek jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad Mbacké cant mënta ci weesu jërëjëf Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba ñu fa jógee nag dem nañu ci rakkam ja jàmbaaram ja ca tool ya sëriñ Amsatu Mbakke moom sëriñ Abdul Ahad moom it mu woo taalibe yépp rawatina kër sëriñ Abdul Ahad Mbakke ci turu sëriñ Siidi Mbakke gannaaw ba mu jiitalee kàddu sëriñ Fàllu Galas Silla salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi ne ci biir réew mi ak bokk yi nekk bitim réew rawatina njabootuk Cheikh Abdoul Ahad ak njabootuk Cheikh Salih njabootuk Serigne Souhaïbou ak njabootuk Serigne Touba gépp ñu ngi yëkkati kàddu ci turu Serigne Amsatou Mbacké mu Cheikh Abdoul Ahad ginnaaw bu mu jaaree Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa ñaanal ko sun borom yàggal ko fi dooli wéram ñaanal jëwriñam di magam di buntam ci Serigne Touba di Serigne Sidi moom Cheikh Abdoul Ahad di ñaan sunu borom may ko fanu gudd lool waa ànd ak wér yaram ñu ngi yëkkate ay kàddu ci kër goo xam ne wala ci liggéey boo xam ne ab liggéeyam ma di yëkkate ay kàddu ci koo xam ne jëmmam ma di yëkkate ay kàddu yoo xam ne ki mu ko jëmee ci moom mooy kër yooyu mu tudd te loolu moo di lan ginnaaw bu mu nuyoo ak ziyaare mbooleem njabootuk sëriñ Saalihu ture gii fi teew ñaan yàlla sunu boroom mu gën a guddal fanu sëriñ Saalihu Touré te gën a dolli ak wéram nangul ko ab liggéeyam ci seexul xadim mu ngi am mbégte bu baax ci bis bii nga xam ne tànn nañ ko muy bis boo xam ne bisub sant yàlla la bis boo xam ne bisub sant sëriñ Tuubaa la bis boo xam ne bisub delloo njukkal la te bis la boo xam ne bisub nafar la ci lañu weesu te mooy bis bi nga xam ne moom la Serigne Touba Cheikh Abdoul Ahad waxoo nag rakkam ju baax ja sëriñ Saalihu ne ko bëgg naa jëmm ju taxawa jataayub sëriñ Touba ba ca cees tey mbokk di borom xam-xam te amuk taalibe Serigne Saalihu ne ko loolu yett daje na ci sëriñ Saalihu Touré ñu tànn ko andi ko Thiès def ko fa mu yore fa làmmiñu Serigne Touba di fa tànki Serigne Touba di fa loxoom waaye yore fa daara joo xamante bii bari na tey jii. ñoo xam ne xëppi nañ ci diine te Serigne Saliou Touré tax ñu xëppi ci diine bari na fa tey ji ñoo xam ne doon nañ ay saadix te sëriñ Saliou Touré moo leen wammat ci yoon wi doon na ñoo xam ne gàggantiku nañ ci diine lislaam te Serigne Saliou Touré moo leen gàgganti kooku nekkoon nag lampu lislaam boo xam ne ca la ko Serigne Touba taaloon muy gindi jaam yi andi ga ko Serigne Touba andi woon nag ca Cees moo toll ci di ñeen fukki at looloo tax nag njaboot gépp àndandoo fas ci yéene delloo njukkal Serigne Touba sant ko ci yàlla sant ci Serigne tubaa waaye bis boobu nag ñu delloo waat njukkal nag delloo ko sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Mbacké moom mi nga xam ne moo waxoon ne ku liggéeyal yàlla ku liggéeyal Serigne Touba murit yi la war a fay ku liggéeyal murit yi Serigne Touba ci boppam moo la war a fay Serigne Saliou Touré boole na liggéeyal Serigne Touba ci Thiès ba murit yi ameel ko ak pay mu liggéeyal murit yi ci Serigne Touba ba Serigne Touba gàddul ko ak pay loolu nag moo tax sëriñ Amsatu di wax ni mi ngi wax ci turu sëriñ Sidi di wax ci turu njabootu Cheikh Abdoul Ahad gépp ne bis boo xam ne bis la bisu Cheikh Abdoul Ahad la te sëñ Abdoul Ahad daana wax ne nit ki as boo ko terelee danaan yàlla naa fekk sa bis ba jaay ci sama bakkan kon nag bis baa ngi noonu di bisub Cheikh Abdoul Ahad di bisub Serigne Saliou Touré di bisub Serigne Saliou di waaye di bisub yoonu murid yépp sëriñ Amsa nag di wax ne fu ab taalibe mën a ne moo xam muy fédération wala muy daayira wala muy soppe wala muy xarit jox na la rendez-vous le 27 décembre ca Thiès di ñaan it mbooleem njabootu sëñ Tuubaa gépp ñoo xam ne dalee na a ci jotaay bii waaye da leen waxaale mi ngi ñaan daal foofee ku fa teew ngir delloo njukkal sañ Tuubaa ku fa teew ngir santaat yàlla santaat sëriñ tubaa ci jaam buy liggéeyal yàlla nee na lépp lu yàlla digge ci ku ko liggéeyal ba mu fay la yàlla na yàlla nga dajeeg moom ci loolu ca Thiès nee nag mi ngi leen di sant bu baax ci teewaay bi ngeen ko defee di gën a santaat taalibe yi di leen xamal ne sëriñ bi joxe woon na ab bind bu yàgg ca njaareem waxoon na ne taalibe bu ne kamala booleel muy sa jëwriñ ci man sab añ ci loxoom laa koy teg soo ko xeebee ba romb ko fi bu ëllëgee duma ma la wëri añ ba ci loxoom laa koy teg kon nag dee leen yem ci jëwriñ yi ma leen tànnal kon képp koo xam ne yàlla tànnal na la sëriñ Saliou Touré muy sa bunt ci sëriñ Touba na nga xam ne doy na sëkk ab bunt du fenêtre du bunt bu ndaw waaye bunt ñaari batan bu yaatu la boo xam ne ku ubbi ci sëriñ Touba ngay jëm kon sëñ Amsa nee mi ngi ñaan yàlla yàlla nañ ko tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabil alamin te sëñ Touba nangul ñu jëf ja te Serigne Saliou Touré fekkewaat ko ay yoon yu bare bare baree bari te lépp lu ñu fa jëf sëñ Touba gërëm ko barkat Cheikhuna Ahmadul Khadim barkat Cheikh Abdoul Ahad wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Cheikh yaak njaboot gi nga am ñëpp ñu ngi di nuyu di dikki ngeen dikk fii ci seen kër fekku na fi fii du ngeen fi gan seen kër la ci anam yu bëree bëri waaye nag bis bi mate na ko ndax bari ñuy wutal bis yeyowuñ bis waaye sëñ Saliou dafa bis yeyow ko benn yoon yeyow ko ñaar waaye yeyow ko tam ñett yoon ndax dafa liggéeyal islam loo xam ne war na ci bis ndax nekk na imam Thiès taxawal fa diine te nekk ci diggante bu xat boo xam ne ñu gëmul jàllaa nga fe ñu bokkul tariixa nga fe tañ jege ko lool waaye mu dëgër am fula ba taxawal fa diine ji nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa bëggoon kon loolu rek jar na defal ko bis muy magum lislaam di murid saadiq boo xam ne itam waaye na fa Sëñ Tuubaa bu Sëñ Tuubaa nekkoon boobu moo xam ne dafa gàkk wala mu am tilim tilim moom fóot na ko Cees ba mu set wecc mu weer ko ci liñ gi ba ñëpp gis ko loolu rek jar na ma am ci bis nekk bañkat itam te bañ dafa am solo ci islam ndax moo àggalee diine fu islam ak bañ ko fa àggale fu yoonu murit àgg itam bañ ko fa àggale mu nekk bañkat boo xam ne kenn du yeb yoon wi ci moom kenn du yeb diine ci moom kon loolu itam jar ñuy defal ko bés kon nag ñu ngi ànd ak yéen bés bi di woo képp ku dib julit képp ku dib taalibe képp kuy xarit képp kuy mbokk ñu fekk leen Cees ànd ak ci bés bi ci jàpp ci wax ak ci jëf ak lu koy jagal ba mel ni ngeen ko bëgge wasalaamaaleykum wa rahmatullah non non loolu mënut a ñàkk. Aliou Mbacké ginnaaw bi nu jugee kër Serigne Abdoul Ahad mbake ñu dem kër Serigne Saliou mbake ndax ku ne xam na ni Serigne Saliou Touré Serigne Saliou Mbacke lañ ko duppee Serigne Saliou féetewoo am njàngam féetewoo tarbiyam ba Serigne Abdoul Ahad mbake laaj ko Serigne Saliou ngir andi ko fii Thiès Serigne Saliou jox ko ko te bis nga xam ni moom la ñuy màggal quarante ans yi mooy vingt sept décembre mi ngi daje woon bis bi nga xam ne ci la fi Serigne Saliou Mbacké bàyyi ko woon wuyu ji boroomum fekk waajuram wa xaadimu rasul kon loolu day tegtale ni Serigne Abdoul Ahad ak Serigne Saliou Mbacké duñu ñaar kenn lanu kon bis boobee dañ ci fàttaliku waale Serigne Saliou Mbacké di ko ci ñaanal ndax kenn mënta tudd Serigne Saliou Touré te doo tudd Serigne Saliou Mbacké fii may wax ak yéen juróom benn fukki at yu war a tegal ànd naa ko moom mu di ma digal di ma tere ba tey tekkee gu ma ak der waxuma nag bokk ga te loolu yi dama jàngal ba senegal kuñ ne borom xam-xam la ñeme naa la kuñ ne Murid Saadiq nga ñeme naa la kuñ ne jaamukat yàlla nga ñeme naa la te duma mooy yàlla ba sëriñ Abdoul Ahad Mbacké liggéey bii àgg fii ci Thiès ñu jox ko caabi mu dem ca sëriñ Saliou Mbacké ne ko Thiès googee kat liggéey ba daa àgg te boroomam xam-xam lees ko war a yóbbu ma bëgg nga jox nu Saliou Touré somom dem ca sëriñ Abdou Khadir wax ko sëriñ Saliou yónnee sëriñ Moustapha Gaye ab des maa nga ba di jàngale sëñ Moustapha ñoo ko fii yónnee ak sa borom ne ko neel Saliou Touré bu subaa na wujji sëriñ bi way laa sax léegi na dugg ci deuxième bi wujji sëriñ bi ma daal di dugg sa gannaaw bu njëlee timis laa nuyu bi mu ne ma sëriñ Abdul Ahad day dafa wax ne jàkke dañ doon liggéeyal sëriñ Touba ci Thiès dafa àgg te gërëm naa la mu ne ma damaa bëggoon nga jox ma Sadio Touré ma def ko yilimaan boobee Sëriñ Abdul Ahad wax ne Cees dinaa leen fa andil ko leen àggale ci yàlla